ça va nekk. ça va maa ngi fi. yaa ngi ci jàmm maa ngi ci jàmm alhamdulilah. Euh, noo gisee booy Medina instant yi ñu bari dañ leen mere. waaw booy Médina yi franchement man affaire boobu noonu acte boobu rafetlu ma ko mm-hmm. parce que euh, devine toi benn kër dégg naa benn lakk bu ndaw moo fa amoon ah ils sont surtout ils sont tous sortis ñoom ñëpp taxaw di seetaan alors que loolu noonu mënoon naa ñàkk parce que surtout instant bi ñu toll nii ak période bu ñu toll nii ñi fa nekkoon ils sont il était suffisant pour alerter sapeur pompier ñooñu rek da doyoon nañ pour ñëw di régler problème boobu noonu mais ñoom ñëpp dañoo génn ne ci koñ bi di daw di yuuxoo alors que loolu noonu franchement rafetlu ma ko voilà c'est ça rafetlu ma ko alors ko policiers yi ñoom suñu suñu suñu suñu wérgu yaram rek lañu ñu bëggal donc man rafetlu ma acte boobu noonu franchement du lu rafet est tamit euh, du Bamba mooy seen maire bi moom moo moom waroon na jël mag non non je pense pas que ni maire bi moom moom moo am tort parce que fii nii kenn ku nekk tu es comptable de ta vie et tu es responsable de ce qui s'est passé l'autre jour man du ma blâmer maire bi parce que ñoom ku ci nekk sa magu bopp nga donc ku nekk sa wérgu yaram yow war na la doy donc du ma ni maire bi laa ciy xaar wala gouvernement bi laa ciy xaar voilà ku nekk waroon ngaa nekk sa magu bopp toog sa kër malgré dëgg la boo gisee problème da ngay dem jéem leen a dimbali mais loolu noonu c'était pas le cas franchement. mais tamit mënoon nañ toog seen kër bañ a génn en fait mais dañoo génn comme si que dañuy kokkali te muso defoon nañ ko fi ñëpp génn wax ñëpp génn saraxu leen ñu toogaat mais affaire bu laq bu ndaw ñu génn comme si ñun ñëpp nam génn. xam naa dañu namoon génn rek. mais ñun ñëpp je sais ni ñun ñëpp nam génn mais bon peut-être c'était l'occasion pour ñoom ñu mën a génn défouler wu et tout. bon puisque lakka fa am ñoom ñëpp ñu daw yuuxoo génn fees dellu ci mbedd mi te defuñu fa dara dimbali wuñu ñoo ndax xam naa adoona du yàgg bañ yéeg ci lakk bi naan dañ koy jéem a fay amuñu fa woon benn njëriñ donc peut-être que ni ñoom loolu la neex rek affaire rayonde moo neex sénégalais est-ce que tam du seen éducation peut-être c'est ça peut-être c'est ça booy Médina yi moo amuñu éducation de base dañoo réew déjà donc voilà quoi merci euh, sëñ bi ñu ah, maa leen di yaa waa sant alhamdulilah waxtaane noo gisee booy Médina yi ñun ñu war a toog seen kër ñu génn si affaire lakk bu ndaw ñu génn di mel ni ñuy kokkali askan bi euh, boobu moom man seen affaire li ñu koy defee man loolu xaw ma neex parce que maa ngi koy xool si télé mais am na loo xam ne rafetul parce que tamit euh, policiers yi ñun li ñuy defaral suñu affaire la ñun suñu lay dimbali pour di la dawal loo xam ne feebar boo xam bu la dalee mën nga daj lu nekk ñu dimbali la ne la toogal sa biir kër rester chez pour man da war a mën a toog mais quand lakk bu ndaw am ñu dem ci di ci ay manifestation di def yoo xam ne mooy loolu am loo xam ne naay sul te ni da ngay yaru nit da ngay yaru loolu moom nekkul loo xam ne lu lu lu lu ma lu ma lu ma lu la man. est-ce que tam du si euh, du si éducation bi parce que mos nañ ko def ñu ne leen ñu toog ñu toogaat ba démb barkaati démb ñu ah mais début bi biñ police yi mais ku yarul ci mbedd ñu yar la ci ci bi ku yarul sa biir kër ñu yar la ci mbedd parce que au début police yi dañoo dem defante ñoom yaa ma gën a xam ñu toog. mais am na lu ndaw lu am ñu bëgg profito di def yoo xam ne mooy loolu loo rafetul gis na nit sa xel ngay demee nit feebar dafa am ci dëkk bi loo xam ne ñun ñëpp la loo xam ne ci ngelaw la nekk ci fépp la nekk aara sa bopp ay nit di la aar dina la pour nga aar di def yëfu ñàkk fa yëfu mën na yëfu réewante la laa loo xam ne yaruñu leen tamit am na tamit ñoo xam ne bu ñu yaroon seen biir ne kay yar amuñu bu baax te éducation moom mooy nit nit amuñu benn éducation bu baax macha allah loolu daal rafetlu ma ko man sama côté ndax bu doon man la man du ma du ma ci génn. tey tey bu ñu waxoon nga joxe ban matuwaay la ñuy def si ñoom tey bu fekkoon yow daal yow yaa joxe matuwaay. mais mais mais yar mais tey jii restez chez vous ñëpp a ngi toog seen biir kër man mii damay liggéey mais may may jàmm police dañu leen jàpp wan leen lan la dóor leen nekk te toog sa biir am na loo xam ne rafet nit bu fekkee yarul ci biir kër na ko yar ci mbedd mi man noonu laa ko gisee na leen ku yarul sa biir kër nañ la yar ci mbedd mi rek merci ñu ngi lay jaajëfal. ma lay jaajëfal bu baax.